ci point bi sëñ Saliou sa digg ilaqatu ko nga loolu moom lu am solo la loolu moom ndax boo xoolee sëñ Saliou Touré tamit ay ay waxam maanaam ñu bari ñu ngi koy kii nii waaye lu naqaree dégg la nag ci ci ci ci ci baati moom xam nga man man sëñ Tuubaa ma booleeg moom yàlla ma boole moom sëñ loolu moom lu ma bu ma la waxee rek ni mu demee di nga xam di xam sëriñ bi dafa ñëw fii jóge got ñëw fii benn tudd bëgguma tudd ka mu doon tudd si waaye fii la ci Mande Fall waajuram a ngi fi bi mu koy tudd si ñu dalal ko ci euh, kër gi jàkkaarloo kër googa mm-hmm. ci benn néeg daal li ñu wax ni dem leen wéttali sëriñu mbàkk mbàkk bi ne foofu ñu wax ñu loolu ne am na sëriñ bu ñu dalal fee yéen dem leen wéttali ko mm-hmm. ñu ñëw fekk ko muy jàng waqafam ñu nuyoog moom bi ñu nuyoog moom mu laaj ñu suñu sant ñu wax ko ñu toog di waxtaan moom mu continue jàng waqaf mm-hmm. wax di jàng waqafam di <laughs> jàng waqafam jàng euh, waqafam ba waxuñu fa kenn waxul ñun kenn waxul lu dul toog ni nii ndax ñun booba suñu taale bi jigéen day ma day nekkuma ko man li man dafa nekk di bari wax wala dara ñu def nii bi nga xam dafa jot gars yi ñaanal yëpp nag ay Baay Faal lañu ñun ñëpp Baay Faal mu mu def ni loxo bi daal di génne montaru montaru julli bi hmm. gaa yi xoolante ma ne ko ah sëñ te ñoo ñaanal ñu ngi ko mu daal di may wax ci arab ne ma al tafiru min as salaat hmm. lu wax sëñ bi ni ko mën dégg naa la te waxante wuñu defuñu dara al tafiru salaat laa nax na bàyyi faale yoon mu ne ma nax nu jamee an bàyyi faale yoon <laughs> lii <laughs> ci bis booba eh. daal ni suma su ma su ma jullee ba pare na ngeen ñëwaat ah, gaa yi daf diggéen bi mu jullee pare ñëpp ñëwaat mu mm-hmm. waxtaan fa Cheikh Rafal waxtaan yoo xam ni c'est la première ñu dégg ko ñun ñu fa ñëpp keroog lañu mos a dégg waxtaan yooyu mm-hmm. si yam ni jaay dina am yëm ci baamtu keroog lañ jëkk a dégg waxtaan yooyu ñun en tant que ay doomi Baay Faal yu yaroo fii mhm. juddoo fii yaroo fii mais waxtaan yooyu mu doon wax jëlee naa ci sëñ Alsey Ndiaye sëñ baa ngi toog maa ngi toog sëñ Alsey Ndiaye ngi toog sëñ am satu sëñ bi laaj na ko nag loolu noonu mhm. <laughs> mosuñu ko dégg waxtaan yu jëkk dayoo mhm. ba ñun suñu xol yi sedd foofu bi ñuy dem mu ne ma sëñ baa ngi ma fiy bëgg daal waaye su ma ñëwee na nga daal di ñëw xool loolu sëñ baa ngi ma fii bëgg daal fii Thiès boobu ñëwagu fi de ah, boobu ñëwagu fi dafa jógee kot ñëw ci ngénte li mhm. ni ma sëñ bi daal na ma fi waaye ñëwagu ma waaye su ma ñëwee na nga daal di ñëw mhm. sama tur téléphone amul booba portable amagul mhm. ndax li ma lay wax ni demaguma sax euh, Côte d'Ivoire booba dégg nga du euh, loolu ci 80 87 euh, eh, lay doon 88 yooyu léegi daal di ma su ma ñëwee na nga daal di ñëw léegi man bu sëñ bi ñëwee duma xam ni ñëw na sëñ bi ñëw na te xaw ma ni ñëw na sëñ bi ñëw ma dina Fall beneen tudd kër sëñ Alla Diouf. Mhm. di ma laajte di ma misaal gars yi ni ko négal kon diw la ku ñu andi mu ni déedéet du kii. Mhm. di ma misaal gaa yi <laughs> gars yi di wër ngénti li fekk man maa ci benn pantre bu xaw a lëndëm maag góor a njaay nekk foofu. Mhm. ku ñu andi rek sëñ bi ni leen du kii du kii du kii bi sëñ Bara Fall waaw lan la ñu ne ko sëñ Saliou Touré moo am ko muy laaj mu leen Maguette Wade la ma nga fële daal di ñëw ne ma eh yow lay laaj. gis gisee keroog bi ma ñëwee bi mu ne yëpp ci néeg bi suñu ne waaw kii laay laaj kii laay laaj kii laay laaj. daal di ma ci boppam. daal di ma ne ma bi indi na ma fi. Mm-hmm. waaye na nga di ñëw yaag abi mbóoj ngeen di jàng si. sëñ bi loolu loolu xar ñëw yaag abi mbóoj ngeen di jàng si. te mm-hmm. sëñ abi mbóoj mi. Mm-hmm. ñuy gàddu suñu téere di jàngi masaalikul ji naa nag ibnu du di nag sama max ak téere yooyu yëpp. mu commencé dañ ko jàngaat booba boo ñëwee sëñ bi ci basangu romb jaanam lay toog ci jàkka ji toog ni <laughs> am na ci loo xam ne waxtaanu fii <laughs> toog rek boobu la eh, aada ay bari nañ toog mhm. aada ay neef ji dëkk bi dafa bari woon waaye mu toog rek mhm. bu ñëwee ñu tam seex ñi ngi ba ci jàkka ji ñu toog Babacar Ndiaye mi yor sikkim ñu toog wër ko ñu ñoo ñoo doon ñeenti doo ngay sin bii muy jàngal ñu toog di jàng boo wàcc jotee ñu jot ñu wàcc bu amee lu naan demee ñu ñëw nekk noonu di jàng mhm. nekk noonu di jàng bëggal ma boppam nag. sama bëgg bopp laa xam mm-hmm. <laughs> bëggal ma boppam comme doom. Mm-hmm. dégg nga jàpp ba noo xamante ni daal doy na war sëñ Seyid. Mm-hmm. léegi ba jamono yi nga xamante ni jeune mouride xew na jeune mouride ma ñëw ni ko sax sëñ bi ñun Dakar ak Kaolack dañoo am jeune mouride ñun ñii dañoo bëggoon sos jeune mouride. mu daal di ma ne ah loolu de bu ngeen ko defee naan jàppal baatin bi te bàyyee leen saa si. xam nga ñun bu ñu amee mbooloo moomu occasion la ci ñun pour ñu mën a nag véhiculer message bi sañ bi yor. Mhm. léegi sëñ Mor Diagne Sylla sëñ Sawalo Gajagar mhm. yàlla ko yàlla yërëm Bulondo Fall mi ngi fii ñoom am Amdi Ndiaye Baara Fall. Mhm. ak waa Nuuru Daarini yëpp. dégg nga ak ñoom sëriñ Fam ñëpp ñu daal di gisee keroog sëñ Mor Diagne Sylla bi ma dañuy bëgg a sos am mbooloo moo xamante ni jeune murid lay doon topp ci ginnaaw sëñ Saliou Touré def ma ni sunu oto du ko fekkee sunu poste du ko fekkee sunu jëmm duñ ko fekkee. loolu moo tax ba ñu waree far président ma wax ko gars yi gars yi ni Mor Ndiaye mii moo doon président bi. Mhm. <laughs> ñu daal di sos mbooloo mi bi <laughs> ñu sosee mbooloo mi. Mhm. Mhm. daal di def ay cellules ay cellules la ñuy def ci quartier yi yëpp quartier bu la ñu def fa cellule léegi daal di sos guddi xasida guddi xasida googu dañuy def waxtaan dañuy def ajuma ci guddi yi. dañuy def fii ci dégg-dégg yi. guddi si yàq bu mag. daal dem ca jàmm gën wala feneen beneen quartier def fa guddi xasida gi nga xam ni jàngkati Sénégal yëpp mos nañ leen invité ñu teewatoo ci génn guddi. Mm. jàngkat yi yëpp jàmm gën. boobu suñu Omar ñu ci digg dënd yi. Mm-hmm. boobu ñoom Boussra Samb ñi yeeg ñoom Mountakha Gueye yeeg ñoom ñëpp dama leen invité ñu ñëw moo yor guddi gi di leen di leen di leen tëral programme bi. loolu noonu ñu ànd ko ak sëriñ bi. Mm-hmm. fu sëñ bi jëm ñu ànd ak moom. dégg mu yor nag waxtaan yoo xamante ni moom. comme kaani rek comme kaani rek tàng jiir <laughs> waaye man li ma lay wax <laughs> sama digg sëñ bi du ma ko wax daal mënu ma wax ci biti waaye xañ na ba gisoon njabootam ba ci toog lu bari dinaan ci mën a wax lu bari bari ah, ah. wante mu bëggal ma boppam lool lool lool lool léegi nag ñuy def noonu mm-hmm. dégg nga dem na sax ba sëñ bi <laughs> njàng mi amatul woon jotam mm-hmm. ndax mujj na autorité bu nekk ci dëkk bi ñëw nga di këpp ci kawam mm-hmm. ndax dëggu ga ak teg nañu ci yoon ba ni ko suñu Abdou Assis gane see genn ngoon ci jàkka ji foofu. Mhm. suñ bi dama takk ndigil yi takk ndigil yi def lu doy waar ndeysaan ànd ak nit ñi. Mhm. dégg nga loolu yëpp nekk loo xamante ni xew na fii ci Thiès. Mhm. suñ bi nekk fii di di di di di di jubbanti mur ji. boole kook liggéey si ñëpp laat ya nag lu ñu woote rek mu woo waa dëkk bi waa dëkk bi ni kër kër ni këpp. xëy nañ fii benn bis loolu sax egg guma ci. waaye eh, dafa am jëmmi jamono man ko sëñ bi dama bëgg a dem Abidjan mu ne ma ah, Abidjan ma ne ko waaw mu ne ma ah loolu de mënul nekk ah man ko sëñ bi sama bàyyi da retraité si damaa war a <laughs> war a xam naa dem ba kii bu ne ma déedéet nekk fii di ma jàppale ci yoon wi ba noppi di dem loolu du ko seetaan. Mm-hmm. daal mel ma nañ dem ci depp ba ñu daal dem ci depp bi directeur bi fi nekkoon mbay Diouf mu ne ko kii day bëgg a dem te bëgg mu mu génn dëkk bi damaa bëggoon nga wutal liggéey bis na tey. sëñ Mbay Juuf ni ko ah sëñ bi loolu jàpp na di mu ne ko tey tey tey léegi nii laa wax kay waxuma beneen bis ah. mu ne ko ah nagel ma xool kayit di daal di xool xool ni ko benn benn poste de am na fi sëñ bi ni ko poste bu lan la mu ne ko gardien di toog ci buntu ba te mm. booba liggéey jarbaat tool eh, eh, taalibu sëñ bi mi ngi ca ñoom de mm-hmm. mu ne ko ñee toog ci dëkk ci buntu ba gardien yi sultani yéene toog sëñ bi ne ko seetal ko leneen seetal ko leneen ñu génn <laughs> maa ngi baj baji naa sëñ bi wax sëñ bàyyi ma jël ko mu ni ma jëli lan ni nga toll ci dëkk bi dinaa la bàyyi ngay soli tëni mm-hmm. billaahi wallaahi taala ni nga toll ci dëkk bi dinaa la bàyyi ngay soli tëni mm-hmm. déedéet nañ seet leneen mm-hmm. ñu dem kër ga ca ngoon nga mu ne ma ñëw ñu dem ca kër ga ñu dem mu daal di woo Modou Mbaye booba STS daana fa journal yi mu woo Modou ni ko Modou mu ne ko màggat mii day bëgg a dem te bëggu moomu dem damaa bëggoon ko wutal ko mu gën a gaawee ah loolu day na waar de mu ne ko tey ci ngoon kay laa bëgg <laughs> nga wax ma a leer moom kay na ko am sax tey jii booba téléphone fixe yi ñoo fay mu ne ko coupé sëñ bi ma woote waat bokk ñu coupé mu woote waat ne ko waa am na juróom-ñaar ñuy jël fii ci usine bi na ñëw ma boole ko ci sëñ bi ne ma loolooy maanaam waaye dem bi ma mënul nekk mm. <laughs> ma daal dem SS loolu ma wax nii 81 80 la 80 la 81 82 83 nekk na fa ba 89 bi usine bi tëj maa ngi directeur ba ñëw mujj bi usine bi tëj maa ngi Moustapha Ndiaye ñëw fa la woon mm-hmm. sama doom bi mu ngi tuddee booba bi muy bi ma tuddee woon sëñ bi ba mu làqu Saliou xam nga ko booba moom mi ngi mi ngi woon lycée mm-hmm. waaye booba man maa ngi STS mm-hmm. waaw waaye bi muy làqu man maa ngi maa ngi bitim réew bi muy làqu bitim réew laa nekk waaye bi ma koy ngénte boobu sëñ ñëw ci ngénte la fii booba maa ngi ci bi mm-hmm. waaw fekk na ma it bi ñëw na bu Europe bi mu ñëwee France di faj si bëtam boobu ni mbay ñang maagat fu mu ne mënu ko ma nga ma nga Italie ne ko ah loolu de fu mu mën ne nañ fa dem fekk ko fa mun ko sëñ bi newul ci biir dëkk bi de nga nekk ci Italie te Italie ak France dafa sore mu ne nañ ko fa fekk rek nii ñu daal di jël saxaar gi ñëw keroog Brescia la jubal fekk fa màggalu sëñ Fàllu Kazu Rajab ñu ne ma sëñ bi yegg si na sëñ ba ñu ne <laughs> bi ñëw na fu mu ñëw mu ne euh, <laughs> maa ngi liggéey maçon boobu ma daal di wax chef maçon bi ne ko dafa bëgg nga may ma une semaine ndax dama am sama sëriñ bi fi ñëw ma bëgg mu ne ma non posso darti neanche un giorno benn bi sax mënu ma hmm. ma daal di jël fooy bindi démission jox ko da ngaa dof wala ma ko téye nii démissionné naa démissionné fay ma sama xaalis léegi léegi léegi nii ma dem mënu ma xaar. ma non ñëwal suba ma ñëw suba sax mu jox ma sama xaalis ma dem fekki sëñ ba Brescia. ma demee maa ko fekk ci gàmm gi màggal gi. Mm-hmm. mu toog ñu tegal ko baraada bi. <laughs> muy attaay ci digg mbooloo mi <laughs> man yegg ci yàlla dafay suur lii ci digg nit ñi ñu tegal ko baraada bi ak baraada muy attaay ci biir nit ñi. Mm-hmm. ma exprimer ah ñëw nga ma ne ko waaw. Mm-hmm. keroog ba jàng yi takkar naa see eh, ba ñëpp ni tekk daa jël kàddu gi <laughs> wax fa loo xam ne ñëpp ni leen fii yéen muud yi kenn waru leen fi fekk ndax ba ngeen di jógee ci kër gi da ngeen ne maa ngi dem liggéey li sëriñ bi. Mm-hmm. wuti lu ma jox njaboot gi kon kenn waru leen fi fekk man mii damaa ñëw doon fa ci samay bët jàll si ci màggat mii di ko seet si waaye damay delluwaat ñëw ma pour kenn jox ma dara. ana sëñ bi lu mu def ci kër sëñ Touba gi boobu la ñuy door jënd kër sëñ Touba gi Brescia mhm. ñu ngi sëñ mu laa def na ci 450 euros def am na lu lim ba jox ma saag bi ma ko saag mu génne xaalis bi jox leen ni sama tam sama wàll la ngi nii kër ga ca Brescia sëñ Sall Touré def na ci alalam France ba mu fa ñëwee fekk na fa ñoo xam ne mënuñoo ñibbi mhm. mënuñoo dem dafa yàgg waa ji mhm. moom ma ko ci gémmiñam ni ma ab ministre ma fekk ca aéroport bi ni ma da dem a déggoon naa ni da da ngay dem faj sa bëri waaye man sëñ ba ma ko waxoon man lépp maa koy def ne daal di yëkkate ab million jox ma mu ma million boobee mhm. <laughs> moom laa ba ma demee ñoom ñooñu dërëm lekk ko ca alalu nguur mën naa la wax def ci biiram du ko laal da koy joxaat nit ñi toog naa fii ci kër gi dem ni ko maa ngi bëgg a dellu Italie ma tey ngaa toog ba ca kanam hmm. ma ni ah <laughs> sa billet bi dinaa ko ñàkkati mu ne ma toogal ba ci kanam rek ma toog ba billet ba noonu laa ko perte hmm. waaye boobu maa ngi liir tanbihul muxtarin bu imaamu Sha'rani mm. tabaxaatul kubra ak yeneen téere Sha'rani li ma ko liiree ba mu jeex fan yooyu nag ma dem ni ko ah sëñ bi day man sama toog yi ma fi toog sant naa ci yàlla man ma ah, lu tax ma ne ko ah naa fi jàng naa fi ñeenti téere Sha'rani yëpp biir naa leen mu ne ma yan ak yan la ma limal ko raqul fuqaraa yi an daxwal wilaaya jajji murid yi ci woote wita woote wilaay mm-hmm. loolu ab téere la mm-hmm. jajji murid yi pour ñu bañ a woote wilaay gis nga woote wilaay ni mu mm-hmm. tabaxaatul kubra Abdou Khadre Kourawo sax moom laa lay mujj nettali ci sama mm. na ma toog fi xam nga na nga toog fi di diñu di fande xam nga diñu mm. mooy bañ a reer bañ a bañ mm. mm-hmm. mun ma tiir yooyu de jaroon na nga toog fi di diñu di fande pour jàng leen <coughs> ndax téere tasawuf la mm-hmm. yu soxlaani soxlaani sax tuddee naa ko doom imam soxlaani mm-hmm. ndax téere ba moom na ma jëkk dikkale dafa baatini ba doy waar Italie laa nekk ñaan sama borom ni ko dama bëgg nga wan ma téere imam Sha'rani ndax boobu dama dégg rek li suñu Musaa Ka wax imam Sha'rani mooy Kamaal téeréem bi bambala mm. bi rek bindul wax jooju noonu dafa am lu muy tekki uh-huh. Cheikh Mbaye mi nga xam professeur mm. doomu Saxeer mbay mm. bi ma ñaanee ñaan gi sëñ sëñ bu mag bi ba bindu registre registre bi mu ko wut registre bi yaakaar naa mi ngi fii ni bu ma gisee téere Sha'rani boobu lu ma ci am binde ko fii bi mu ñëwee toog ci kippaaru kër gi la Cheikh Mbaye dawal téere dawal moto ba gaare ni ma papa dama lay siyaar si dama dégg ni ñëw nga ma lay siyaar ma ne ko mbaa jàmm ñu mu jekk ma papa am nga ma ne ko déedéet ne ma yar naa ci benn naa la ko mm-hmm. ne subhanallah ma daal lii ma la nii bu ko nettalee sëñ moo téere bee bu ma ko nettalee sëñ sëñ baara boobu mm-hmm. ma ne yow ba fekkee li nga wax dëgg la wóor na ma ne sëñ Tuubaa moo lay gëstu loolu ma ne ko xam naa ko mm-hmm. waaye pënd bi dina mu sa wuri yii fi ne nii mu naa ah, ma a ko tëj gémmiñ la ñuy def pënd bi dana mos a wuri ji mhm. dana mos a ak li jëm ci mbindum bi la ñuy soxla ko mhm. yi nit ñi yëpp dinañ ko sànni ci àll ba ndax ah ñun ñu fi newoon démb xam nañu ne yu bari kenn ñemetu ko wax léegi mhm. mu ne ma mm, téere bi dinaa la ko indil mu indi ko ma ne ko waaw bi mu koy laata indi ma ko ndax téere bi la sëñ Moussa Ka di wax imaamu Shaarani mooy Kamal téere bi bambalay misaal mu fël sama gémmiñ ne ma papa sa maam Seex Samba Jaara daa way téere bi du tur wi Cheikh Mbaye wallahi la si mm. bëyit yi ma wax ci moom laa ko mokkale mm. keroog laa mokkale moom ci bëyit yi ma wax ko mu bind ko mu ne ma eh, ne ko nu Cheikh Samba wax mu ne Cheikh Samba dafa def na téere bopp la ci nekk mooy jikkoy Cheikh Bamba mm. laajal seexi gànnaar tën biihu mooy turam wa soo ko yëree gis jikkoom ya fees ko di baawaan ba gànnaar mm-hmm. xam nga soo demee ci tanbihul muxtari da gis wa min axlaaqihim radiallahu anhum mm-hmm. al wara mm-hmm. lay wax nag nit yàlla yi bëri fi ñu jaar ci wara wa min axlaaqihim radiallahu anhu az zuhdu bi ndax laa xëyam radiyallahu anhu ñàkk nelaw guddi ni ñu koy waxeetee mm-hmm. dégg nga mm-hmm. asaxaru fi nay mm-hmm. yooyu yëpp noonu la koy toppee mën nag jikko yooyu nekk ci téere bi la sëñ Moussa Ka wax ne mooy jikko yi sëñ Touba <laughs> moom la wax imaamu Sahraani mooy kamal téere bi daal Bamba rek lay misaal kenn moom imam Sahraani def na téere bopp la nekk mooy jikkoy Cheikh Bamba laajal Cheikh gànnaar tan biihu mooy turam ba soo ko yëree gis jikkoom yi fees ba gànnaar nga xool sëñ bi tam ci fonk gu mu fonk xam-xam mooy téere bi may wax tabaxaatul kubra bi tabaxaatul kubra mhm. tabaxaatul kubra damaa dem Moustapha Souran mhm. jox ma un million trois cent ci livres yi mu jëkkoon bind mhm. bi nga xamante ni jox na ma ko dama ko jaayoon ay livres noonu bi ma ko joxee bi ma joxee xaalis ma dem ci banque retiré ko ni eh baal ma jaar fii jënd téere daal dem ci naar bi rek boobu maa ci ndafuk téere yi imam Chahrani yi daal di ko ni ndax am nga téere imam Chahrani mu ne ma ah déedéet Saxraani moom téeram gëj naa ko am. Mhm. ba caag mu ne ah bàyyil ma xool ba xam. daal di dugg ci biir indi benn téere bi mu ko nee paf fëgg ko poussière bi dafa nii dafa naaw. mu ne ma téere baa ngi nii. Mhm. téere bi daal laa yor ci téere Saxraani. Mhm. ma xool téere bi ñu bind ci atabaxaatul kubra. tabaxaatul kubra. la tàmbalee ci Seydina Ababacar ba ci sëriñi Saxraani yi kenn ku ci nekk. noo daan jooye guddi gi yëpp. noo daan foogee guddi gi yëpp mm-hmm. sa jaar-jaar sa bëgg yàlla mm-hmm. sa ñàkk lekk ay ñoom Ahmadou Rifaa yeeg mm-hmm. ñëpp ci biir téere boobu tabax 2014 laa ko laa ko laa <laughs> <laughs> léegi téere boobu noonu bi mu ñëwee mi eh. ko jëndee ba ñëw ci sëñ bi bi sëñ bi ah man de am na tabaxaatul kubra def ma ni subhaanallah foo ko jëlee ma ni ko maa ngi ko jënd Ndakaaru mu ne ma ko nag ma ko daal di indil nu mu gën a gaawee ba ma dem Saliou ba léegi maa ngi koy wër mënu koo gis lii li ma sëñ bi wax ba ma dem Saliou ba léegi maa ngi wër téere bi mënu ma koo am mhm. ma ne yaay waa ji sama laa mi ñu réew yu yëbale musiba ne bu téere bi duggee ci loxoom ñàkk naa ko <laughs> taxal <laughs> ma sëñ bi déedéet euh. mais day naagal li day naagal li day naagal <laughs> ba benn bis ñu bëgg faa dem ma ni sama xarit bi Mamadou euh. booba nag la ñu am ay machaakil yu ndawoon awoon ci diggante sëñ bi loolu ku ma ko laaj dinaa la ci nettali bu ñu toogee nii euh. ndax loola <laughs> sax xaj na ñoom ñoo amoon masaakil amoon masaakil sëñ bi waaye masaakil yu ndaw la woon rek ci liggéeyu saytaane mm-hmm. waaye ñu bari dañ ko jàpp waaye man bëgg naa toog yi bari waxtaan leen ci leeral leen ni mu demewoon ak yooyu mm-hmm. waaye du deere sëñ moom jàppul dara ci xolam gars yi ñoo amoon seen fugg tuuti rek waaye loolu du déere fekk ne liggéeyal nañ ko moom liggéey bu rëy moom sëñ bi mhm. waaw léegi bi nga xamante ne nee na ma indil ma téere bi ma daal di téere bi mhm. ah, sa ma ne ko déet bala ma ko jox sa bos nañ wër ba xam mhm. neex lool ñu dem ci ku sant soir ci marché bi rek mu ne ma ah imam Charan deman benn téere bi laa fi yor mooy tabaxaat boobu ngay wax noonu daal koy génne ni ma cinq lay jar muut ni ko jox ma ko 4000 mu ne ko wax baax na indi muut dem ca marché bi jël ci xaalis si jabaram ñëw indi jox ko bi ñu indee gis nga bi ñu ñëwee sëñ bi dañ ko fekk ni suun mm-hmm. ko muy waxtaan mu ñëw ni ko buux téere bi xam nga lu ma jëkk sa bosaa ndax sa bos la xool loolu ndax sa bosa <laughs> loolu la ma jëkk a laaj ndax sa bosa <laughs> ma ne ko du sama bos de kon bosukaan la ma ne ko muudu mii moo ko jëndal mm-hmm. ma ne ko waaw fekk booba diggante bi sëñ moom rattaxal daa ko ba dara néew ko eh. mu daal di ni ma eh. mu ni ko yaa ko jëndal mu ah, ma ni ko saw fa taxalam sëñ bi ni ko saw fa taxalam saw fa taxalam saw fa taxalam ma ne ko maasa bi saw fa taxalam loo ji jublu noonu maa ngi moom ak Moodu rek eh. mu ni ma téere ba ma nga wax ahmadul buddi ba ko sëñ bi joxe ma waay la dund waaw mu ni ma waay la dund ma ko joxe sëñ sëñ bi dañuy saw fa yàlla moo andi al xadim li rasulillah mm-hmm. <laughs> dana dem ba xam ne maay xadimu rasul waaye mu ne ko yow tam saw fa taxalam saw fa taxalam moom sëñ bi xool ni mu bëgg xam-xam xool téere boobu li sëñ bi mm-hmm. léegi ñu jox ko téere ma xëyee ba léegi fu ne yóbbu naa fa jibi ci jaaykat téere yi di wër téere bi nga indil ko ci ngoon gi xool loolu tam mu xëyee daa topp jaaykat téere yi di wër téere bi mm-hmm. fu ne mu taxaw fa moog jibi di laaj téere bi ndax am ngeen ko ba mu demee ba daal ba toog ci ngoon gi laa ko yët téere boobu léegi bi loolu jàllee yëpp sëñ bi naar benn wàli yu naaru mu fonkoon jaar fa <laughs> sëñ bi abal ko téere bi ndax moo ko àbb téere bi sëñ bi jox ko téere ban fa ñëwee ci semaine bi sëñ bi naa ma ah sama téere ba de dem na <laughs> ma ni sama téere bi bootul la ma bëgg laa laajaat de man <laughs> ma ni tekk rek mu ne ma ah, téere ba dem na de Sidi Abdoulahi la naar bu ma ko yóbbu eh. ah man di waar lool lool ma ni patt rek ni rek bañ fa jógee ñibbi nag ci beneen semaine bi la ñu fa toog delluwaat maa ngi Mamadou toog naar bi ni jógeet yor jóge Dakar sëñ bi ni ah sama téere ba ñëw na sama téere ba ñëw na xool téere bi ni ko sëñ bi toppee rek ak li mu ciy daj mm. sama téere ba ñëw na sama téere ba ñëw na naar bi ñëw nuyoo daal jox sëñ bi téere bi sëñ bi di jàll si leen ci biir ñu jàll si mën ak Mamadou Thioune mm. laaj ko ko mu ngi fee ci wetu école bi mm-hmm. sëñ bi génne jenn daraa joo xamante ni da lay wóor lii cent cinquante mille la ci ñaw baak xeetu bassin ba mm-hmm. boole ci dàlli marakis yoo xamante ni daal ko ni lii maa la ko tàmbalee ci yow ci téere bi tàmbalee ci yow ci téere bi ci lu jar quatre mille maa tàmbaleeg yow ci téere bi ci lii téel dama ne la grand boobu wóor na ma ni wóor ba léegi. <laughs> joxewu ko mi ngi koy yor. grand bu bu rafet ñaw boo xamante ni ak maraki si original yoo xam ne ko lii maa ko tàmbalee yow ci téere bi da lay wóor ni loola mm, valeur u cent cinquante moom dem na ci. waaw téere boobu noonu la ci sëñ bi jëflantee ak ñun. waaw nga xamante ni xam-xam fu ne jaar na fa te ñun yeneen yi ci des nag. Mhm. boobee mu ñëwee nag <laughs> euh, Italie. Mhm. daal di Eh, da nga dul xëyee ma ne ko ah sëñ bi démissionné naa <laughs> démissionné ma ne ko ah démissionné naa noo fi nekk may dem di liggéey di def bàyyi mhm. maa koy toggal nag sama loxo <laughs> mhm. maa koy toggal waaye dama laa war a hôtel ci hôtel bi ab néeg dama hôtel maa day sa néeg yàlla def na kër sëñ Tuubaa ñu luy woon mhm. amoon naa fi néeg man <laughs> néeg bi nag ma daal koy aménagé defar ko lal ko ba mu jekk defaral ko léppam mu ne foofu ci néeg bi waaye siyaar yi suba ba ngoon nii la gars yi def moo di nii la ñuy def suba ba ngoon jàll nañu Pisa nag dëkk bu ñuy wax Pisa mu seeti fa benn jarbaatam bu sant ñang waaye noonu lañ fa nekk ba ni mu ñibbisee waaye ndeysaan bi Saliou gaañu ñëw na fii yëpp loolu yëpp mu wax ko loolu yëpp mu wax ko ndeysaan yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla yàlla yokk wéram yàlla yàlla guddal fan wi yàlla suñu borom ba sàmm leen sàmm njabootam itam yéen itam vraiment seen taxawaay rafet na lii daal la sañ bëgg yaa ayyuha shibyaanu laa tashtaxilu anil huda wa bil ulumi ishtaxilu mm-hmm. fashtaxilu bil afti wa tilaawa wajtanibu majaalis saqawa mm-hmm, mm-hmm, eh, man loolu laa gëm démb rek laa koy wax benn xale fi may laaj ma ne ko man je n'ai jamais été à l'école française musuma jàng français musuma benn bis la sama tànk jam ci école français mhm. bi ma yeggee directeur bi ni sama maam looy wut mu ne ko kii laay indi pour ñu inscrire ko mu ne ko feesal nañu mhm. ma wàññi ko keroog laa gëj a teg sama tànk jël lotti eh, mais waaw li allez-y kunta xultu kunta xultu xaalaan <laughs> livre livre yi tey bëgg nañu ci wax baax macha allah. te ne dafa dafa dafa làmb français français anglais arabe moom mii moo ko bind maa ngi leen ko sànq nee nañ suñu suñu programme heure mhm. bi ñuy def sa euh, cinquième waaw yi gënoon ndaw la yow waaw boobu boobu boobu def naa yi gënoon ndaw la suñu programme anglais moom mii livre bi ñu doon jàng moom moo ko bind mhm, te te yeex na ñoo xam ni sax moom mii moo ko bind mhm, kon maanaam cinq ans laa ko bind moom xam naa ñoo ngi ci daal moom dañu bëgg rek xale yi gën a maîtriser loxaat yi nga xamante ni mooy loxo yi fi gën a kii ci mi daal gis nga. ñu mhm. la koy def. Mhm. sabaar xayr. Mhm. atamanaa lak sabaar xayr. nag wëlbatiku léegi. voilà good morning. bonjour. ana bi xayrin. I am fine. kayfa xaaluka. how are you. comment vas-tu. ana bi xayrin. I am fine. je bien. loolu la koy topp ñetti langue la daal. bon am na ay euh, ci biir. produit bëri na lool dictionnaire la. Mhm. livre la. macha lépp la maa ngi koy publicité ci Thiès Média sax quoi. Mhm, mhm. mais xam naa dama yaakaar ni Touba daal laa ko bëgg dem imprimer ko foofu. incha allah incha allah alors door ko yaatal daal. incha allah waaw lii yëpp nag. Ah, bëgg nañ ko li ma gëm te gëm ko. mooy li ma wax fii ci mujj gii. waaw bi Ibrahima Diop defee euh, préface bi. dafa wax ni al wal kaatib ثم قبل الكاتب يحاول أن يلبي دعوة الشيخ الخديم أحمد بامبا حيث دعا أبناء بلده قائلا ولا تكن في كل يوم تاركا تعلما واعمل به متاركا وقال أيضا إذ كل عامل بلا علم يرى فسعيه مثل هباء نثرا إلى أن قال ومن نهاكم عن التعلم فنهي إلى ضلال ينتمي يا أيها الشويان لا تشتغلوا على الهدى وبالعمر اشتغلوا استعن بالإثم والكلاء واجتنبوا مجال الفخار ومناكم عن التعامل بالفناء إلى الضلال ينتمي العلم والعمل الجواب على أن خير قال يجتبان voilà lii jaar jaar yi la. moom xarit fii. des ko fi jël. ko ko maye daal. macha allah waaye am na ay mbir yu am solo yu ne ci biir mbir yu ci wàllu naxawu ci wàllu mufradaat ba ci ay maalumaat yoo xam ne mi ngi jëm ci roasaay. yi nga xam ne ñoo jëkkoon ci réew mi. Mm-hmm. ak euh, yi nga xamante ni ñu siiw lañu. seen ay taarixu mawlid ak seen taarixu wafaat yu mel yëpp mi ngi ci daal. ci biir livre voilà biir livre mm-hmm. ci nekk lu bari loo xamante ni yaxta aju ilay al tilmis. Mm-hmm, incha allah incha allah bëgg nañu daal waaw leen xam naa ni ma ko bëggoon defee. Ah, <laughs> waaw kay jërëjëf waxtaanu improvisé ah, rek macha allah macha allah <laughs> ngi leen di ñaan bu baax di ah. siyaare mboolem sama sëriñ yi. waa Loyen. di leen ñaanal yàlla guddal seen fan. xalifa ba sëñ Moustapha Lo ak mboolem ay rakkam mm-hmm. di ñaan itam sëñ Saliou mm-hmm. yàlla bàyyi ko fi Cheikh Mountakha Mbacké yàlla bàyyi ko fi ak mboolem kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci yoon wi mm-hmm. waaw mu mel ni sëñ Cheikh euh, Mouhamadou Mbenda nga xamante ni dañoo bokk ci wàllu ndey yaayam waajuram jigéen ak sama yaay ay doomi bàyyi lañu am na rakkam ju nekk fii ci ginnaaw route de bis beneen mi ngi jokkook ñun di doxal wàllu doomu nijaay gi doomu bàjjen gi waaw waaye nag comme mbiri yëpp mm. bixtu bu nu watiyee moo fi nekk bi leeraale ah, <laughs> waaw waaye suñu mbokk la ñangu sama yaay la yor mm. yaayam ñangi sama yaay la yor ah, moom sëñ bii fi nekk sëñ Modou Mbenda jazakumullahu xayran wa kufikum charan jërëjëf sëñ Maguette Wade ah. sant nañ baax baax baax ñu ngi ñaan suñu borom gën la fee bàyyi gën la fee yàggal waaw gën a yaatal liggéey bi gën koo barkeel dëgg yàlla bég nañ loolu di sant bu baax suñ baara mi nga xam ne moo newoon ci caméra bi di sant bu baax tamit mañ moo noor ak képp ku ñuy suivre ci émission Dialibatoul Bourour yéen xamal ni kon sëriñ Maguette waa di moom lañ dalaloon di ñaan tamit livre bi bu jénnee ñu sox bëgg nañ mbooloo mi moom jot ni mañ moo noor yi ñu jot waaw waaw incha allah waaw bu ko ñu gën koo yaatal bu baax baax baax baax waaw kon ñu ngi yem ak fii yéen euh, ci émission bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu